ahousubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman xasida gi mu ngi jëm ci sëriñ bi mi nga xam ne noonu lay jëlee góor def ko mu nekk mu'min nekk muslim nekk muhsin ci beneen côté bi it lay jëlee jigéen def ko mu nekk muslima nekk mu'mina nekk muhsina woote naa ngir na lottu naa ci wayal dëgg seyxunaa kañutin wan ñu rabbana feeñalaat saa ngi dox fu ne woote naa ngir na lottu ci wayal dëgg seyxunaa kañutin wan ñu rabbana feeñalaat sunna seydina ba sunaam saa ngi dox fu ne àdduna mënta def géwal di ko bàkkal te koy wayal wuti naa daayu xoor bindal te di wax man la muy defal ci jigéen mag la baa gone ba nga wootee ba nit ñi ñëw nga xamal leen ka bind kaw fekk leen dëggi géeji mbew nga waral gaali ngëm di daw ba ñu xam buur ta koy wone aka ngaa sell tey setal aka nga maadu tey jubal su du toon yow ñu ñam mbugal meññetam mbuur mi ngay rotal ci jigéen mag la baa gone jigéen ñaa ngi di wut ngërëm ma ne yaa tax ñu sopp gëm mu junan tey ci réer gëlëm ku ne jàppaat boroom këram di ko tuubal ta koy wone ci sa leer gi nga gis jigéen gu kawe ne giléem gu teen faale wut àdduna ak yeneen sàmm boppam du dox di dox di benn ba mu am meññatam gone nga la waaxul jigéen te dox na nga xam yow le kan tafax na sa njub mooy ne ñépp bu baax te sa soow mukk bul karax yàlla xeejam du rot fu ne na nga xaaraat sa suuf tëji meññatam buur du mas daje ci fu da koy bañi na nga seet suuf su laab nga ji kon nga góob meññatam wane jigéen day sax ci biir këram te di muñ bëgg ay gorom te du raamal boroom këram bëgg ñépp di wut ngërëm mbaaru njub lay fexe roni na xëy lool saxoo sikar bëgg lool buur te koy fikar na nga ànd ak ku lay waggar ci sangam jox la gan ji yar buntu muccoo ngi lay sune bul di jaaxle di wut njibar na nga moy na moytu te daw bu wér na nga xam ne sa buur bi yor na lu dul jeex te baax te xeer del saxoo ñaan ci saa su ne na nga ñaan barke sab sëriñ te nga yaakaar ci buur njariñ ne borom bii di daa xariñ te du lor mukk day jariñ na nga jébbal ko say done na nga liir teera soxna sa baam jaara ka jëf lu ne ndax nga doon dëgg muslima na nga xuus géeju mu'mina kon di saw tur di dem fu ne na nga déggal ku sell ki yoonu tarbiya lay tege nasaru faw day jege na nga mucc cu lay doge amindam mag raw mag ak gone da nga déggal ku sell ki yoonu tarbiya lay tege nasaru fàwwu day jege da nga mucc ci lay doge amindam ndam raw mag ak gone jërëjëf yow ku sell ki sa taar bi la ñuy bége ku la mis dootu ñam dege da koy sage ne sa jaajëf jar na lu ne jërëjëf yow ku sell ki ci sa taar bi lañuy ñuy bége ku la mus dootu ñam dege ci gi ñam da koy soge ne sa jaajëf jar na lu ne jigéen ñaa ngi di mu'mina soppi seen xol di muslima mujj nañ dooni moxsina nda su jub gaay nda su jub gee di jël ku di ko taaral ta koy wone jërëjëf yaayu yoo tagg xol yi ngay fomp tey ragg ku la xam day soxoo tagg du la sàkkal moroom mukk ta sa mbaax gee fi jar wone wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallama taslima jërëjëf sëriñ Mbàkke Abdullahi